amee sant yàlla <coughs> ndax yàlla may nañu ñu tàmbalee ko ci bisimilahi rahmaani rahim yi mu yegg ci alhamdulilahi rabil alamin moom aussi benn fait bu ñu ci seetlu mooy prise d'armes lañ def levée des couleurs mhm. pratiquement sax euh, c'est pas aussi euh, la première fois que mu am Sénégal absolument waaw ndax boo xoolee euh, diggante président Senghor ba ci président Diomaye Faye bi fi nekk mhm. je crois président Macky Sall daloon na ko am na mhm. fi ak moom selon circonstances ak situation bi nga xam ne moom la ñuy remplacer successeur. tout à fait. te ba su kaaw euh, Bassirou fay Faye euh, c'est très visible que ñëpp gis nañ ko. tey nag moo nekkoon euh, le 4 avril nga xam ne 1960 le Sénégal jël indépendance ci ay kayit. Mm-hmm. tey nekk le 4 avril 2024 Sénégal fête son quatrième anniversaire am. Mm-hmm. muy bés boo xam ne ci lañ wax ne ci lañ moom suñu bopp. Mm-hmm. man nag sur le plan contemporain laa jàpp ne dañ moomee suñu bopp sur le plan temporel. ndax indépendance Sénégal moom ko moom ci jamono yi nga xamante ne suñu mag yi jaaroon nañ fi ak nasaraan si ndax tey suñu président yi dëkkul jëli ci Léopold Sédar Senghor mosuñoo jàkkaaru tubaab yi. kon ñi ngeen ñoo fi nekkoon di jàkkaaru tubaab yi ba am ci ñoom ndam. tey bu ñuy cité dañuy cité Lat Dior dañuy cité Alboury Alboury Ndiaye sax Modou Touré. buñ duggee ci côté Samaam kan la. Albouri Ndiaye. waaw Albouri Ndiaye mooy sama kon nak sank nag def naa penalty ci yow kon nak Ndiaye jaata Ndiaye donc euh, suñu jëlé historique. Mhm. des combattants yi nga xam ñoo fi nekkoon doon xex tubab bi. Mhm. ba ci Aline Sitoé jaata doon bañ notel ak momel mhm. ñu dem ba génn ci loolu après yàlla dogal tey suñu kilifa diine yi jël la relève tey bu ñuy wax euh, El Hadj Omar Foutiyou Tall il a mené une bataille une guerre sainte avec les tubab non seulement que libérer Sénégal des griffes des des colons mais en même temps implanter l'islam au Sénégal ñu dem ba affaire bi di et on se rappelle aussi de euh, Mamadou Lamine Dramé ca Ziguinchor nga xam ne aussi ca Casamance c'était un Wali boo xam ne moom it da doon xeex euh, nooteel nga ñëw ba dugg ci euh, Cheikhul Khadim Diganté mag nasaraan si moi ànd ak ñoom sept ans sept mois et quelques mm-hmm. sans armes, mais avec une arme boo xam ne mooy yàlla suñu borom ñoom ñëpp tey dañoo contribuer ci tax tey Sénégal am indépendance am te base bi ak fondement bi ci ñoom la ils ont mënee les batailles avec les armes et mené des batailles avec des armes sans armes mais avec yàlla suñu borom. Mm. muy allah waahidun tey loolu moo andi conception wu. Sénégal ba ba wax la première république qui a été installée par Thierno Souleymane Baal vers les années 1600 1700. mu créé gouvernement ba gouvernement boobu tey jii bokk na si li nga xamante ci biir constitution wu Sénégal gi nga xam ne France la jóge ñëw Sénégal sax dañ ci gis ay pàcc yoo xam ne day méngóog li nga xam ne Thierno Souleymane Baal tegoon na ko. Mhm. ba waxoon na sax ci wàllu mandat bu ñu jiitalee nit ci ab barab mu jiite ko. ah weer wu ne war nañ koy saytu par exemple moom ñu ko saytoo woon moo nekkoon tey bu fekkee dañ laa fal ci ci ci ab nguur nga yoroon juróomi xar soo demee ba weer wi dee wala ñaari weer ñetti weer war nañoo saytu xar yi nga yor yokk na su yokkoo ñu xool ndax dañoo juuf ci lawin wala mu nekk loo xam ko lijjanti la nga lijjanti ñu xool dañu koy jële loolu ñu wax mhm. saytu li nga xam ne moom lañ la dénk kon tey suñu mag ñi suñu kilifa diine yi chapeau à eux mhm. yal na yàlla yokk ay leer ñu ñu nag mhm. ba ci Léopold Sédar Senghor bi nga xam ne tubaab bi ba mu libéré Sénégal à travers euh, De bi mu ñëwee fii Sénégal on da Mbaye Jacques job yàlla na ko yàlla yërëm xaaral ko aljanna firdawsi les porteurs de pancarte yi doon laajte seen indépendance mhm. di ci fàttaliku wàllu jooju Njaay ba euh, euh, nu mu tuddati ci euh, De Gaulle dem ba naan vous voulez l'indépendance prenez bés boobu tey moom la ñuy màggal mhm. mais indépendance dëgg man li ma jàpp mooy indépendance souveraine économique social, mm-hmm. boo xam sur le plan économique sur le plan finance. Mm-hmm. sur le plan de moom sa mm-hmm. sur le plan de am sa vision Bob damaa jàpp ne indépendance boobu des ah. économiquement le Sénégal est toujours. dépendant dépendant. de la France. d'accord bi nga xam ne moom ñu moomoon. d'accord tay nak ñu gis ne élection amna ci élection bi mu président le président de la république yalla ko une semaine motoko, mm-hmm. prestation de serment mm-hmm. ñu tek ci ñaari fan dem palais def discours de remerciement président Macky Sall mm-hmm. a ko président Macky avait anticipé que la euh, euh, fête de l'indépendance comme nous avons fait, tout le du absolument Il y a mon moo ko mm-hmm. parce que quand on dit gouverner c'est prévoir. Mm-hmm. d'ailleurs il a l'habitude de le faire. Bah, merci beaucoup. li mu def li mu def ñu euh, euh, nga euh, centenaire bariwul. bariwul bah, moom laay wax mm-hmm. donc ça veut dire que kon moom tàmm na prise d'armes. tàmm lever des couleurs. mais tey. li ñu doon def centenaire Sénégal yëpp doon ko xaar. Mhm. circonstance bi moo tax tey amul te dañ ko koy nangul nag. d'accord mhm. te constitution moo ko validé. Mhm. accepté que ne nii lay demee. tey ñu rafetlu ko. 10 heures pile le président Bassirou Diomaye Faye génn ci biir pale bi ñëw ci óolu pale bi. 10 heures pile. waaw dafa respecté heure. waaw non pour le moment respecté na la. Ah, waaw waaw. <laughs> parce que boo xoolee bañ koy soog fal premier discours am gars yi xaar nañ lu mat presque une heure doomu aadama nag mu tut mm. mais tey damay jàpp ne lu officiel am na tey. Mm-hmm. respecté na te dañu ñaan yàlla ñu respecté ko noonu ba faw mm-hmm. jàpp na ko ci nag. ñëpp di ko respecté également ñëpp fa laa ndax dafa ñaari baat yoo am ne suñ Tuubaa da ko waxoon. dafa ne ñaari yi su ngeen demee boo koy roy ci nasaraan. Mm-hmm. na ngeen ko góorgóor roy ko ci moom ba jëfe ko. mooy fonk kàddu. ak respecter heure. la ponctualité. et le respect le respect de la parole donnée. ñaari Serigne Touba ne ne bu doon booy wut lu muy orienté ci ay taalibeem suñu roy ko ci nasaraan loolu lay doon parce que tubaab respecté na heure ñaari bu tubaab respecté na kàddoom. Mm-hmm. te loolu diini islam moo ko njëkk tënk. Mm-hmm. ndax Seydina moom suñu borom doo ko ko santoon. Mm-hmm. donc tey bi mu yegsee mu am benn fait bu inédit boo xam ne Sénégal joxante loxo rek moo fi xaj xëy na am na ay tension politique yu amoon diggante deux mille vingt et un fi ñu yegsi.

Euh, benn Bokk Yaakaar sur le plan de l'Assemblée nationale moom moo leen fa représenté deuxième point ba nga dugaat ci le président du conseil économique social environnemental mm-hmm. muy la grande dame Aminata Mbengue Ndiaye membre de la coalition benn Bokk Yaakaar nga jóge ci loolu dugg ci président conseil économique et social mm-hmm. yaa ngi dégg wala su ma juumul mm-hmm. muy Abdoulaye Daouda Diallo Amin Mbengue Ndiaye moo yor euh, kii astafurlah Amin Mbengue yor au conseil collectivité territoriale membre Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. Daouda Diallo président conseil économique et social environnemental Benno Bokk Yaakaar et le président de l'Assemblée nationale kon le conseil Bokk Yaakaar mm-hmm. en miniature qui s'est rencontré avec le premier ministre le nouveau premier ministre di ñaan yàlla yàlla woyoo ko yen bi mm-hmm. muy Ousmane Sonko tey ku ne gis na seen diggante Ousmane Sonko moom ci boppam ak le président actuel monsieur Bassirou Diomaye Faye ñoom seen diggante ak benn bokk yaakaar fitna gi ci amoon coow gi ci amoon tàng bi mu tangoon ba ku nekk nangul bàyyi ba suñu borom moo defaral bopp lépp mhm. li am na ci réew mi du daray kenn du màqamay kenn du pexey kenn suñu borom moo toog nu ko neexee def ay pion dam yee ba mu neex ko. mu soog a jël Bassirou Diomaye Faye def ko président ku kenn yaakaaru toon mhm. mu toogaat ba mu neex ko ne leen tey sénégalais naa leen wanaat beneen mbir. Mhm. danaa jël benn bokk yaakaar jël ci ñetti ñi ci gën a kawe. Mhm. ñu bokk ak Bassirou Diomaye Faye ci biir palais ba ak Ousmane Sonko. C'est ça le Sénégal. C'est ça la diplomatie sénégalaise. C'est ça mhm. l'élégance mhm. de ce pays. Moi, tax ku ci nekk. Mhm. ku jàppaloon sa morom dara. na ko baal àq te baaloo ko àq te xam ne réew mi lii rek moo tax mi donc sante yalla, ci lever des couleurs bi am tey. man de loolu laa ci gën comme symbole bu frappant. on voit aussi le général Moussa Fall. qui a abattu un travail extraordinaire. absolument et l'ensemble des généraux yoo xam ne tey jii ñi nekkoon ci opposition Pastef l'ex-Pastef avec le président et le premier ministre. Mhm. mais gis nañ acharnement bi ñu qui ci le général Moussa Fall. am ko ci yeneen généraux yi fa newoon Xeyna na idéologie politique la woon arme de combat mhm. mais aujourd'hui, ils se sont rencontrés encore bi général Moussa Fall saluer les honneurs au président Bassirou Diomaye Faye. Mhm. nga xol différence d'âge bi nga xol sur le plan du profil nga gis ne Diomaye Faye tay ku ko newoon di nga taxaw tay fii ci biir palais bi suñu lay defal honneur yi yëpp da lay ne da ngay gént. Mm-hmm. c'est pour dire que tey l'honneur et le mérite revient maintenant à la sensibilis à la sensibilité mm-hmm. des citoyens sénégalais. Mm-hmm. nous sommes une famille indivisible réeroo mun na am ñàkk bokk position am mais je crois que bu ñu ba ci cappaandaw ku ci nekk source ak base bi nga xam ne moom la ñuy doxalee réew mi. mooy nag bi nga xam ne mooy le plus important. moo koy wax saa su ne mooy suñu kilifa diini islaam yi. ñoom ñoo liggéey li tax Sénégal saa yi demee ba nar a toll fenn fi ba nar a nërmërlu suñu borom ñoom lay rus. d'accord ndax àllaaxira dañ lay rus wala nga ne ko ñu rus. Mhm. Sénégal nag yàlla dafa rus suñu kilifa diini yi moo tax sant yàlla yàlla yàlla yàlla doole jàmm. amiin alors.